waaw ni nga ko waxee noonu la étape Sédhiou caravane candidat Macky Sall ci dibeer bi daanaka am na tis boo xam ne amee na ko ndax it sandarma yoo xam ne ñoom ñoo bokk ci escadron euh, terre bu Ziguinchor ñoo xam ne doon nañ ko escorté bàyyi ko ci Kolda di ñëw fii ci diwaanu Sédhiou euh, jiitu njiitu réew mi euh, bu ñëwee ba Buñaadu Sukutoto ca la nag seen i woto bi daal di def l' accident. ba mu defee l' accident seen bi mu daal di daanu ñetti yoon mu am tono boo xam ne def na ko ci àll bi mu am ci ñeent nit ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen i bakkan mu am ci tamit euh, fukki gendarme yoo xam ne ñeenti nit ñooñu ñëpp ay gendarme lañu ñu am ci yeneen fukki nit ñoo xam ne ñoom ñëpp ay gendarme lañ bee ci ay gaañ-gaañu yu metti waaye tamit ñaar nit ñoo xam ne ñoo nekkoon ci boori taliba it ñoom tamit dal di ci jëlee ay euh, gaañ-gaañu yu métti métti loolu nag l'accident bi mu ngi xewee tey eh, ji ci jamono joo xam ne eh, candidat Macky Sall doon eh, na ñëw fii ci diwaanu Sidiou bàyyi ko Kolda ci loolu nag ci lañ daal di am l' accident boobu lañ waaye lu wëndul l' accident bi ba tey amuñu ci lu leer waaye loo xam ne ñu ngi koy wax ne ñu it ku ko doon dawal amoon na ben jamono joo xam ne daanaka lu mu doon daw dafa bare te it amul woon maitrise maanaam téye boo xam ne moom la ak dal ba mu waroon ànd ànd nag boobu oto bi daal di daal di xalaangu dem ci décor bi loolu nag euh, am na ñeneen ñoo xam ne jot nañ kaa laaj ñu dëkk ci boor yooyu la ñu ne euh, ci benn euh, moment nak oto bi doon na jéem a doubler benn camion frigorist nee na ci la nag mu daal di déraper mu def ay tonneaux loolu yëpp xam naa ci kanam war nañ ko gën a mën a leeral anam maanaam circonstance yoo xam ne ci la l'accident bi amee loolu nag moo di xew-xew boo xam ne bu tiis bu amee fii ci diwaanu seju ñu war ci dikk ci euh, lu gën a yaatu ak ay yeneen précision yoo xam ne aju na ci wàllu accident boobu la xam ne amal nañ ko waaye tamit euh, ci beneen fànn it euh, meeting bi di candidat Macky Sall jot na kaa def fii ci diwaanu Sédhiou ndax bu mu fi yegsee fekk na fi mboole mu takku takku moo xam ne bàyyi nañ ko ci gox goxaat yu bare fii ci diwaanu Sédhiou ñëw teewe linimel Ah, te lol tamit xumbute eh, yi bare na eh, ak tamit lo xamne modi ay pancarte ak it ay support di ay t-shirt ak lu bare lo xamne dañ ko ci dañ ko fi lal mu aju ci eh, li di meeting bi lay ci jamono jo xamne jël na ci cadeau candidat Macky Sall neena dal fi étape sédu ab bare na lo xamne def na fi ci investissement ci tali yi way tamit ci walu éclairage public ak pont Marsa ak it loo xam ne moo jëm euh, ci wàllu pont Marsa pont Farafenni loolu yëpp dikk na ci lu gën a yaatu ci loo xam ne moo di euh, taxawaayam nee na bu ñu ko falaatee dana am liggéey boo xam ne dana ko def loo xam ne moo di désenclavement bu kul di Bujee waaye tamit euh, pont ne war na nekk diggante Sédhiou ak Sandiniéry ndax wax na fi zéro bac loolu yëpp nekk loo xam ne wax na ko xam naa du ñakk ci sunu yeneen xibaar ñu dikk ak yéen ci ay yeneen détails yoo xam ne mu aju ci wàllu étape Sédhiou caravane candidat Macky Sall ñu fàttali rek l'accident bi def na ñeenti nit ñu ñàkk seen i bakkan ñoom ñëpp ay sandarme lañu moo am ci it ñoo xam ne ay jële nañ ci ay gaañ-gaañu yu metti di ay sandarme ba tey ak it ñaari civil ñoo xam ne ñu dëkk ci Buñaadu la euh, ñoom tamit jëlee ci ay gaañ-gaañu yu metti fii ci diwaanu Sédhiou Moussa Dramé Sédhiou Fox Sud FM. Moussa di wax ni élection yi sax ñi nga xam ne kat moom mooy nekk électorat